di ñëw ci waxtaan woo xam ne dañ koo jëmale ci téere bu am solo bi nga xam ne euh, daayira bi dajale sëti Cheikh Maodou ñoo ko taalif tudde ko xadaayiqul fadail fii siirati Cheikh Mahamadul Fadal téere boobu lañ bëgg duñ lenn ci lim ëmb ay bunt yu bari la bokk na ci bunt bu njëkk bi di wax ci ak feeñam ay cosaanam akum njàngam boroom xam-xam ak nit yu mbaax ñi nga xam ne seere nañ ci moom ay seere te seere yu jëm ci wàllu xam-xam ak lu mu ñu war a gaaral nag ci bu gàtt bunt bu njëkk bi nga xam ne ñu ngi ko jëmee ci euh, feeñu Cheikh Modou Fadil akum njàngam ak cosaanam euh, xam nañ Cheikh Modou Fadil ci askanu mbaax askanu njub askanu xam-xam askanu diine ci la bokk diggante Mbàkke ak Mbusoobe ak Afe ñu nag ñoo ñoo ko seq te ñooñu euh, histoire li mu xam ci ñoom mooy fu ñu mas a nekk ay taal jàngoo fa nekk ay jàkkaa fa nekk ñu jàngal nit ñi leen jiite yooyu tam yëpp boo ko seetloo génnul ñooñu way juróom Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu juróom soxna Xawa Busa ak euh, soxna Mati Ñang ñuy jur soxna Xawa ñooñu ñu kër mbaax lañ mën lañ mën a tudd ne kër mbaax la. kon Cheikh Modou Fadal nag bokk na ci li ko may lim mel li ñuy wax léegi cosaan yu baax way juróom Cheikh Ahmadul Xadim du ko ñuy xam le du ko ñuy wax ab jant la bu ne fang waaye soxna aw bu mi ko meññ it nag noonu la mel ñi ko meññ moom di soxna Mati Ñang mi way juróomu jigéen ak sëriñ Mouhamad Bousso di sëriñ Bousso bi mi way juróom góor fu ñu tudd mbaax tudd leen mbokk yi tudd nañ fi ay bayit yoo xam ne ba ko Sëriñ Tuubaa daf yàgg na tënki ko Mouhamad Boussa di ci tagg nijaayam jooju nga xam ne kon ku yàgg ràññi ko ci mbaax la woon loolu ci diine bokkoon ci ñu doon jihaad taxawal lislaam ci Saalum ñoo ñoo ko meññi waaye moom it nag mu màgg jël loola ndax yaru ci keppaaru mbaax keppaaru njub ràññi ko woon ci mbaax ràññi ko ci xam-xam ràññi ko ci njub am na boroom xam-xam bu ñuy wax sëriñ ma faal faal juñu nañ ko fii ci téere bi ne mas naa gis soxna jàng alxuraan mu leen di bernde guddeeg di jàngkatu alxuraan jàngkatu xam-xam lool ci xam-xam na ci firnde rek li ñu wax ne xes xesaam ak mat bu shifa nga xam ne ñoo xam ne bi ko sëriñ bi taalif noonu mu wax ci njëlbeen gi rek eh, wéradi metti goo xam daanaka mën mënutoon dara ci zahir nga xam dafa woo soxna si jox ko xalima ak daal di ko imla soxna si bind bi mu noppee jàng ko mu daal di wér kon loolu am na lu muy tekki ci niveau bu kawe ci wàllu xam-xam waaye yàlla defal ko barke it moom itam wax nañ ne bi mu ñëwee ci kër gi la mu ñaanoon ne bëgg na daal néew néew na fi am ñaari bant kon ñett la fi amoon kenn ka teel a dem ñu soxna Fatima mi nga xam ne mi ngi fii ci Mbàkke ginnaaw bi la am Cheikh Mamadou Fadil ak soxna Mariama Kunta ñëpp di ay nit yu kon euh, la mu bëggoon kon yàlla defal nag ko mu ràññi ko lool ci mbaax wax nañ ne bokk na ci li ko yàlla baaxee woon fajum fajum fajum fajum cosaan yii faj ci ay reen ak xob te lu ju bari ci sëriñ mag bi la ko jëlee woon wax nañ ne mujj na këram nekkoon ab clinique mën nañu wax ne clinique traditionnelle la woon léeg nit àgg ci bëtam di waaj a yàqu mu dikk mu composé ay yëfam di ko ci tuuf ba mu wér ak yu mel noonu yoo xam ne euh, day wane rek ne nit ku baax nekk nitu social amal njëriñ nit ñi. di leen jàppale ci seen diini waaye di leen jàppale ci seen adduna doon jaboot joo xam ne dafa wuufoon ñu bari ngeen ko xamee it eh, ab taawa mooy sëriñ Afi Ahmadou Niang Afi sëriñ Afi nga xam ne moom mooy magi Cheikh Ahmadou Fadal magee na ko solo xaw bari ndax jege na fukki at waaye ñu bokk wenn way jur eh, eh, ñoon ñëpp nag di nit mbaax nit njub ndax ku xam sëriñ Afe it sëriñ Abdou Kumbaan mi nga xam ne mooy waajuram bokk na ci ñi sëriñ Tuubaa njëkk a bind ci ñoom marsiya mook Euh, sëriñ Ndiobu Mati Ñang ci jihaad la des ca sëriñ bi génn ñëw ñu tàgge leen ko def na ci xasida gu yéeme di wax seen melokaan ci mbaax seen melokaan ci ci aw yiw kooku moo jur sëriñ moom moo njëkkoon yor soxna si kon am ci sëriñ Afi Ahmadou Ñang ginnaaw bi mu ñëw ci kër gu mag gi am ci Cheikh Modou Fadil mii kon daal ñu jàppoon ne Cheikh Modou Fadil mu baax ko wër kon nii mu mel ku xam doone lu tax mel ni waaye nag ak góorgóorlam tax na mu gën loolu it bind bu ñu war a jàng la saa su loolu it di lu am solo ci doomu aadama cosaan lu baax ndax li sunu borom waxoon ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi kon mën nañu jàpp na eh, cosaanam cosaan lu baax a baax la am loo xam ne lépp diine la lépp ngor la am na ci càlla la ay maam sax càlla la goo xam ne dañ koy lim ba ci alxasan imaam dañ koy lim ci sayidna ali soxna fatima az-zahra Euh, muy kon luy wane ne cosaan loo xam ne ci mbaax lañ leen yàgg fekk ci wetu koy juróom bu góor ak wetu way juróom bu jigéen yëpp euh, nañ ko xamee it afe di ñi sant ñaŋ ca jolof nit yi xam-xam nit yi diine nit yi mbaax lañ mu bokk ak bi kon muy way juróom di nijaayam ci ay yoon rafet gu de bokk nañ fa loolu la mbokk yi njëkk a wane ci téere bi leeral ci leeral yu am solo yoo xam ne baax na kenn ku ne euh, bàyyi ko xel waaye jàngat ko it xamee ci ne lii am du hasard doomu aadama ni muy mel li ci ëpp ginnaaw dogalub yàlla day am sabab sabab bi ne bokk na ci am cosaan ak ndër lay lu dëgër nga mën caa teg tabax jëm kaw kon moom cosaan lu dëgër loolu yàlla defal na ko euh, ci wàll yi mbokk yëpp nag wàll yi mbokk yëpp waaye leeral nañ ci it nag fiñ ko jaarale ndax cosaan lu baax baax na lool waaye doyut loo baax baax cosaan laaj nañu waajal la ba loolu nga doon nga mën koo doon loolu nag Cheikh Modou Fadl yàlla defal na ci tawfiq li ñu war a jàng lépp ci diine ci mbaax jàng na ko fi mu ko war a jànge ak ñi ko war a jàngal ndax ñi ko jàngal booy juróom Mawlana Cheikh Abul moo ko dalal jàng sëñ Daam Abdourahman Lo moo ko jàngal alxuraan bu àgg maam Thierno Birahim allah maam Mor Jaara magi mag ak alxaaji Mbàkke Buso kon ñii ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko naq ci xam-xam ñoo xam ne ñëpp ay jum lañu woon ci xam-xam ak mbaax xam-xam bu ànd ak mbaax ànd leer ndax xam-xam mën naa bari lool waaye du ànd ak leer waaye ñii ku leen xam-xam ne seen xam-xam leer la àndal walla Sëriñ Fallu ci ñooñu la jànge alxuraan ci ñooñu la jànge xam-xam ci diggal bii nag nga xam ne kon mooy Touba ak li ko wër ba doon ko ràññiku lool jàmbaare lool ci alxuraan nga xam ne wax na ne bind na ci yenn waaye lu mën ñeent fukk kaamil yoo xam ne yëpp Sëriñ Touba la ko jébbal na jamono joo xam ne bu nawet bi tero tàmbalee eh, taalib yi mu ànd ak taalib yi ne jotoolee bu ñuy liggéey muy liggéey ci liggéeyam di bind kaamil bu kaamil bi bu tool yi noppee tasante kaamil bi àgg mu boole lépp jébal ko sëriñ bi comme loolu di pasté bu mat ak liggéey taxawaay bu waaye ak bind yi du war a jàng xam ne jamono ju ne ku ne am na la war loolu it euh, wane nañ ci lu am solo am njëriñ lool loo xam ne danañ ci xamee ne doomu aadama it ndono lum mën a am wàcc waay bu mën a am am na foo xam ne faaw ñu jaarale ko fa ngir mu mat dëgg-dëgg li mu doon mooy tarbiya ak yar ginnaaw bu jaaree ci loxo yooyu ci jàng alxuraan jàng xam-xam it Sëriñ Tuubaa ko tarbiya tarbiya ruuxiya tarqiya ko tasfiya ko xam nañ ne nekkoon na gànnaar nekk sëriñ bi ci loolu nekk moom jolof waaye ca gànnaar it gën na fa xóotal xam-xamam ci jaxasoo gi mu doon jaxasoo naa di gànnaar yi nga xam ne borom xam-xam rek ñoo doon fekk sëriñ bi kon muy koo xam ne it wàllu xam-xam mën nañoo wax ne xojja la ci woon ku xam dara ci làmmiñu arab yi nga xam ne moom la doon bindee da nga xam ne maanaam baxar la ci goo xam ne amul tefes wax arab yomb ko lool jàppandi ko lool wax lu leer nañ ñu rafet lool li ñuy tuddee sahlul mumtania boo ko tiim da ngay jàpp lu yomb la. ndax day neex a xam waaye boo ko doon jéem xam ne yombul loolu sëriñ Fallu xam nañ ko ci bind it yàlla dafa koy tawféex ñi dàq bind ci réew mi ci la bokk kon loolu lépp di ay mbaax yoo xam ne nag ginnaaw dogalu sunu borom faggu te fu ay waajuram yitte boo xam jukaay moo ko may nga xam ne yoo dañuy sonn door caa jot tax na it eh, xam-xam boobu fis moom la doon jëflanteeg nit ñi doon ko jëflanteeg bokk yi doon ko jëflanteeg ñi doon jaxasoo ñëpp. ba tax fësal nañ ci téere bii lu mat fukki kilifa ak ñeent te loolu lu néew la ci ñoo xam ne seere nañ ci moom xam-xamam am diineem yitteem ju kawe ak dëddam yu baax daal yi daje ci moom ñii ay naari gànnaar lañ ay borom xam-xam ñii ay yeneen lañ fi ne Guinée lañ dëkk ñii ay sénégalais ci yoon wi ak yoon wi kon ay kilifa yu bari euh, mbokk yi indi nañ ci téere bi ay seere yoo xam ne joññoo nañoo Cheikh Modou Fadil di borom xam-xam gis ne Euh, mbër la ca ñu firndeel seen xam-xam boobu bokk na ci ñooñu Ibnu Hanbal alxasani di ku ñu xam korañ ko lool Muhammad Abdoulaye Alaalawi yi nga xam def na ci moom ay xasida yu yéeme bokk na ci alxaaji Sidi Muhammad Fodé nga xam ne seen cosaan Guinée la bokk na ca bokk na ca sëñ Abdourahmane Bousso sëñ Ndàmbar bokk na ca sëriñ Maodo ture moom nga xam ne sëtu alxaaji Malik la te def ci moom xasida gu doy waar gu yéeme ak ñeneen ñu bare bari ñoo xam ne eh, ku leen doon lim fii du fi xaaj waaye dal mat dañ fukk ak ñeent ku mel ne sëñ Bay bu sa param ko ci la bokkoon eh, ba ci ki ji mu jiitu mu mu jiitu mooy Serigne Cheikh Abidi ab sëtam nga xam ne ci ci ronam la gimmee di wane rek kon ne ci njëlbeen ba ci mujj gi Cheikh Modou Fadil ñi ko xamoon ci njëlbeen ak ñi ko xam ci mujj ñëpp yam loolu lañ xam ci moom nitu xam-xam nitu njub baax nitu tab ak yu bare bari yoo xam ne lii tax nit gën daal dayoon na ci moom mën nañu wax ne daal li turoom bi tudd nga xam ne bi mu feeñee ci Daaru Salaam ci Daaru Salaam ci ñaar fu guddik ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab 1301 tolloog 29 mars 1889 euh, ñu yëgal ko sëriñ bi ndax jamono yu fekk na sëriñ baa ngi nekk Tuubaa di ko sanc ñu yëgal ko sëriñ bi mu santaane nañ ko tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam Muhammad al Fadil xam nañ ne sëriñ bu soobee ko tudde ko noonu turam woowu moom la dund kaana fadilan ci jikkoom fadilan ci cosaanam fadil ci ay jëfam ak jëflanteem yàlla na ko yàlla fayal dolli ko ngërëm te taasuñ ci barkeem ñu ndokkeel baax na njaboot gi nga xam ne am nañ yitte ci lu mel nii daa war a tasaaroo ku mel nii ndono la ci ndono yi la dugg nga xam ne nit ñi dañoo war a tànk ci moom war ca fexe ba yi génn tasaaroo nag loolu la ci nit ñi di jànge xam ne ñu bare bari ñu fekkee wutoon jamonoom wala xamuñ ko woon buñ jàngee xam ne Cheikhul Fadil kat nii la gëne woon waaye bokk na ci li taxoon mu gën ginnaaw dogob yàlla ak sañ-sañi suñu borom fii ñu ko jaarale fi mu jóge ak fi mu jaar su ko defee ku bëgg a mos yooyu dara xam ne foofu aw yoon la ñu ngi siyaare ñëpp deen baal ak nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi